ñëwee lu mu def dafa ne ko ñoo jëlal butéel bi nga sotti ko fii Franc daw yëpp ak fa mu sotti gàllaaj bi nga sotti ko daa mel ni bàyyi ji li Franc Tyson 2 li Franc def moom la bëggoon toj tojal ñoo ngay xool ku nekk fa mu taxawee ñoom ñaar ku ci nekk dañoo bokk tegtal ñoom ñaar tegtal yi bëri na trop ci digg géew bi waaye yàgg yàgg ci bëre mujj waa Franc yee ngi yëkkati blanc bi waa Tyson 2 ngi yëkkati blanc bi kàlla ci ndab li di ñibbi këram ci kanam tuuti ñu xool waaye nag baa jiili. kaaw mën na cee am de. door mu daan. laay kaaw de laa mën na cee am. loolu de du ma bett. ni ko Pape Ibo Ngaye di waxee. kat api jël la. waaw bi daanu yaa koy yëg wallaay yaa koy yëg. loolu xamu ku ko ko may. waaye li tax mu wax ko. waxi mag dëgg la. moom mooy wax ak ñoom. ndaysaan mu ngi wax ñaari mbëri heure bi muy wax ak ñaari mbëri mu ngi. nekk il est vingt heures neuf minutes Emile François Gomis ak Tyson 2 mbokk yi Franc moo la woon ginnaaw moom ngeen jàkkaar lool ndaysaan arbitre bi laaj na Franc laaj na Tyson 2 taxaw leen da ngeen a yàqamti rek waaye coup de sifflet moo leen boole moo leen taxal arbitre bi sifflet na mbokk yi samedi 19 juin 2021 arène Vox Arena moo fi woo Franc ak Tyson 2 Franc féete leen di joor Tyson 2 féete leen càmmoñ Tyson cokkaas na cokkaas na Franc Tyson 2 dafa bëgg a xeex Franc koy Franc fay da ko ñaar ma gis kaaw mën na cee am ñoo bëgg a jàppi ñu lay door door na mu daanu door na ko mu ko mu daanu Franc door na kaw ko mu daanu door na ko mu kaawoo. door na ko mu daanu. Tyson 2 il n'a rien compris. Eh, Franc ko mu daanu. Tyson 2 il n'a rien compris. ko mu daanu. la njaago bu lekk ba suur. Ah, illa wala muy wax jëfandikoo xolal moo ma xeexu njaago du jeex. xolal moo ma njaago du jeex. tey xale parcelle bi. Eh, Franc door na ko mu daanu. kenn du moom. Eh, naa sëriñ si. ndeysaan. la ilaha illallah. xale yaa ngi koy xoolal tribune ba. door mu wàcc. Adama xoolal ma Franc nee na door na ko mu wàcc. Franc nee na dama am doole. Franc door na Tyson door mu wàcc. fi ko fi ko kenn xaaree woon fa la génn. xeex ba mu xeex ak moom baa ji dama jël ko. ayca kaay Adama.